ay ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement jàkkaarloowaat ak yéen yaakaar naa ne kii ñu jàkkaarlool nag day doyen di sunu papa alaaji moom nga xam ne def na lu ne ci làmb nekk chroniqueur boo xam te ni saa bu waxee réew mi dañ koy déglu waaye saa bu waxee tamit yenn ci ndaw ñi dañ koy déglu père ñuy sawar a am ak jotaay ak moom di waxtaan ak moom surtout rawatina ci làmb papa ñoo ngi lay nuyu di la ziar. alaaji maa ngi nuyu bu baax baax a baax tey papa ñu war a waxtaane lu bari ndax yaakaar naa ne làmb yi fi jot a jàll bari na waaye fi may njëkkee muy Ama Baldé ak motuloo jàll na noo gisee boobu combat Ama Baldé ak motuloo <laughs> bëri ba jàll na mooy li nga wax rek Modou Lo daan na te it euh, ku xam làmb xam Modou Lo xam ni bala ngaa gëm ni daanu na nga gis ko toog ci dënnam ndax li jikko yi am ci champion bi daf ko am am na étoffe am na xel am na xam-xam am na dal Mhm. lu làmb ji rëy rëy xam na naka lu koy maîtriser. lu làmb ji rëy rëy xam na ko lu koy bëree. Mhm. dafa yàgg ci géew. Mhm. doon champion boo xam ne kenn werantewul li mu man ak li mu def. nee naa la boo ko nattee ci jëmm da ngay juum. boo ko nattee ci taay da ngay juum. boo ko nattee ci xel foo xalaat xel ma xel na ko. donc man bu daanee Ama Baldé bettu ma. Ama lan nga jàpp ne keroog dimanche boobu ban erreur la def ne moom la def ba mu. daan làmb ji la attanul. dafa dafa dafa ji te làmb boo daj ak champion da nga koy bàyyi ak làmb ji waaw ne bu bëggee ñëw gàddu làmb ji bëgg a fecc bëgg a bëre bëgg a duma bëgg daan booy dem booy ñibbi dañ lay yëkkati ne la mm-hmm. jógal daanu nga mm-hmm. dafa yenu làmb ji rek te Modou Lo kuy bëre ak moom waroo yenu làmb ji man mm-hmm. làmb dañ koy séddoo waaw da ngay jël am looy jël am looy jox adversaire maa ne boo ko naree wax li ngay def pendant toute la semaine nelawoo récupéré woo mhm. yaa ngi fecc yaa ngi euh, savouré victoire bi te jëlagoo ko loolu yëpp daf lay déconcentré salivé victoire bi te jëlagoo daf ko dafa jël ndam li te jëlagoo ko mhm. te loolu te loolu boo ko defee da nga yenn loo attanu mhm. te loolu say mbokk ak say xarit ak ñi la wër koy teg loolu boo ko nangoo rek teg nañ lu diis loo xam ne bu dimanche boo koy wàcc ci làmb ji dañ lay lëng ni la demal xamuloo làmb ji ni mu demee après ñu gisaat Modou Lo jël ki nga xam ne moom moo di Boy Niang yaakaar naa ne max Gaston kii Makan Mbeng moo ko tëgg. loolu le premier janvier bii di ñëw la mu nekk combat boo xam te ne combat mu duggoon Pikine. duggaat Pikine daal di duggaat Pikine moom Modou Lo. non Modou boo ko nee bëree la waa Pikine biir Pikine seen biir kër sax mu bëree ak ñoom Modou tamit euh, làmb ji tax mu jot. xam xam na ni li ñu am ci làmb ji wërsëgam la te loolu leer na ci boppam xam na ko. xam na ni li war ci làmb mu ngi ci doo ko mhm. dégg ci dara mhm. doo ko doo ko gis muy taxawaalu mhm. doo dégg ne romb na fii gis naa ko fii ku bëgg a gis làmb ji nga koy gisee qualité yooyu mu am nag dafa doon qualité champion ba amee bés lu bés bi rëy rëy ko attan na ko ndax yenoon lu bés boobu muy dajee xale bu doy waar boo xam te ne daa doon mbër gi mu dégool booy ñëw waaw loolu ak trondoo ba waaye mooy li ma la rek moo du ko ñëw mu bëreek moom c'est que wute nañu nag. doomu dëggal. wute na ak Ama Baldé. ndax euh, booy ñaa am na kilifa. ñi ma lu bàyyam liñ ko sant lay def. te du fête victoire avant jour combat bi. te it xale bu lëlul la kenn du ko gis du taxawaalu donc buy bëree ak moo Modou bëre bi day metti te moo Modou wax na ko sax nee na bëree ak Boy Niang moo gën a jafe bëree ak Ama ndax Boy Niang doo xam li muy def te amaa da ngay xam li muy def Modou Lo bi mu taxawee xam ne Ama li muy def te it Ama wax na ko ko mm-hmm. mais Boy Niang bi muy bëral xamul lan la Boy Niang di def te loolu mooy làmb waaw combat bu doy waar muy def il faut nga am problème mm-hmm. mais buy bëre koo def mm-hmm. ci plateau yeeg wax ko fu nekk fa saa yu ñu dajee mu wax ko xam naa boobu xool na jëmmam jëmm ji ëpp Modou mais Modou benn yax la dafa am force intérieure du force boo xam ne day feeñ ci jëm force bi ci biir la nekk te loolu bala nga ko xam ngeen dugg ci biir làmb yi xeex ba jàppante ci nga xam ne dafa am force keroog dimanche bi passé tamit mu amaat combat boo xam te ni daf fi jàll muy Siteu ak Lac de te yaakaar naa ne Siteu bi muy dugg ci làmb fi la fekk même Lac de tamit aussi loolu ñu mën a wax ci combat boobu non Siteu jàmbaar la dafa dafa fekk koo xam ne ñëpp ko fi bàyyi mu ñëw jël ko. koo xam ne kenn mënu koo daan. Lac de Guiers benn défaite la am peut-être. ak ak benn défaite ak Modou Lo euh, décision médicale. Mhm. sinon Eumeu Sène rek moo ko fi daan. Mhm. ak li mu bëri yàgg ci làmb yëpp. Mhm. dafa naqaree bëreel. neexul a bëreel parce que du foowee làmb am na doole xale la dafa sérieux day entraîné. te du wanteer bëreem donc booy bëreeg moom da ngay am jafe-jafe. mais c'était jàmbaar la. jàmbaar la ndax bëreeg moom pendant vingt te Lac de Guiers daanu ko yëgul ci kawam. Mhm. mu résister ko xeex ak moom bëri ak moom. Mhm. mu mu daan ko par avertissement. Mhm. surtout tamit c'est un garçon à féliciter. c'est un garçon qui a de l'avenir. Lac de Guiers. non Lac li bari na ci moom. mooy li muy wax neexul daan. ni muy bëree neexul daan. ndax du fooy bëri. dafa sérieux ci li muy def. te dafa sérieux ci entrainement sérieux ci làmb.

Lac de Guiers gagné la par décision médical kay mën nga bëri ku ne lamb il faut ñuy bërante amatul yooyu jërëjëf ay grand contre péteg yooyu amatul ñëpp ay bëri si ta mën a bëri n'importe qui mën a bëri sax Bombardier bu ko neexee looy tàggatoo ak lan ngay wax jeunesse bi booy xanaa di <laughs> leen jàmm ak salaam rek yàlla defal leen jàmm ak salaam te di ñaanal Gaston Mbengue yàlla may ko wér di ñaanal makaan lii muy yëngatu yàlla di defal ko ci barke ba bàyyam fekk su ko muy def ñu ànd doo di ko def diggante Alaaji Papa Dieng ak Gaston sama la sama rakk la sama yaram sax a ngi daw. de grand frère de luxe la may wax. waaw man grand frère de luxe la may wax. donc xam nga su ma ñëwee fekk ko ci condition yi mu feebar. ça me fait mal wax ne ngi ñaan yàlla yàlla may ko wér ndax sama xarit la sama rakk la teraanga bu nekk defal na ma ko. donc lu mel nii lu mel nii bu ko defee euh, makan dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. te làmb yi bàyyim tëgg mu tëgg làmb yi ko dàq te bàyyim fekk lépp nag mhm. ba ne nag nii la mën a mel ndeyam dafa baax kenn du yaayam mhm. léegi dafa baax boole ko tey ak dal ak yaru ak muñ mhm. kon bu juree doom bu melee nii duñ jaaxal dañ koy ñaanal di ñaanal yaayam di ñaanal papaam di ñaanal ay rakam di ñaanal mbokkam yëpp jërëjëf merci waaye saa waxee tamit yenn ci ndaw ñi dañ koy déglu père ñuy sawar a am ak gataay ak moom di waxtaan ak moom surtout rawatina ci làmb papa ñoo ngi lay nuyu di bu baax a baax a baax a tey papa ñu war a waxtaanee lu bari ndax yaakaar naa ne làmb yi fi jot a jàll bari na waaye fi may njëkkee muy Ama Balde ak motuloo jàll na noo gisee boobu combat amaa Balde ak motuloo Lo. <laughs> ba jàll na mooy li nga wax rek Modou Lo daan na te it euh, ku xam làmb xam Modou Lo xam ni bala ngaa gëm ni daanu na nga gis ko toog ci dënnam ndax li jikko yi am ci champion bi daf ko am am na étoffe am na xel am na xam-xam am na dal lu làmb ji rëy rëy xam na naka lu koy maîtriser. lu làmb ji rëy rëy xam na ko la koy bëree. Mhm. dafa yàgg ci géew. Mhm. doon champion boo xam ne kenn werantewul li mu man ak li mu mhm. def. nee la boo ko nattee ci jëmm da ngay juum. boo ko nattee ci taay da ngay juum. boo ko nattee ci foo xalaat xel ma xel ma na ko. donc man bu daanee Ama Baldé bettu ma. Ama lan nga jàpp ne keroog dimanche boobu ban erreur la def ne moom la def. ba mu doon daan lamb ji la attanul. dafa dafa yenu làmb ji te làmb booy dajak champion da nga koy bàyyi ak làmb ji waaye bu bëggee ñëw gàddu làmb ji bëgg a fecc bëgg a bëre bëgg duma bëgg daan booy dem booy ñibbi dañ lay yëkkati ne la jógal daanu nga mm-hmm. dafa yenu làmb ji rek te Modou Lo kuy bëre ak moom mbooro yenu làmb ji mm-hmm. moom làmb dañ koy séddoo waaw da ngay jël am looy jël am looy jox adversaire bi daa mm-hmm. ne boo ko naree wax li ngay def pendant toute la semaine ne la woo récupéré woo yaa ngi fecc yaa ngi Euh, savourer victoire bi te jëlagoo ko loolu yëpp daf lay. déconcentré kon la salivé victoire bi te jëlagoo ko. daf dafa jël ndam li te jëlagoo ko. Euh. te loolu te loolu boo ko defee da nga yenn loo attanul. Euh. te loolu say mbokk ak say xarit.